mu mel ni que démb la woon élection yi euh, d'abord naka nga dundee démb euh, journée bi. waaw journée bu bu spéciale. Ah. comme comme journée électorale yëpp. Uh-huh. Euh, dangay yeew na gis nit yi di rang di vote ji. Uh-huh. ngay xaar nekk ci diggante xool affluence ak taux de participation. Uh-huh. xool nit yi est-ce que ñu ngi génn di vote ji xool nit ñi génn ñan ñoo ci ëpp ban catégorie jigéen ñoo ci ëpp walla góor ñi. Euh, ci loolu aussi nga xool ndaw ñi ñoo ci ëpp wala. mais ci biir catégorie yooyu nga xool aussi est-ce que jeunesse bi moo ci ëpp wala mag ñi. alors euh, loolu mu nekk lu relatif tantôt. des fois nga mhm. dem ci benn gox nga gis ne jigéen ñoo ëpp ñuy génn di voter. en tout mhm. cas diggante benn intervalle be benn intervalle. Mhm. nga dem ci yenn gox aussi nga gis ne. jigéen ñi ñu ngi voté góor ñi di voté wante ci biir góor ñi ak jigéen ñooñu ñu ëpp mooy ñu gën a mag wala ñu gën a féetee ndaw donc loolu danga koy gis yeneen gox yi et loolu it dafay am selon réalité dëkk bi donc euh, loolu nga koy constaté nga dem ba également ci matine bi nga gis nit ñi d'accord euh, génn nañu lool après nga ne da ngay questionné est-ce que vraiment taux de participation bi c'est puisque dafa faible. Mhm. est-ce que c'est lié au fait que nit ñi dañoo bëggul dem vote ji. Mhm. wala nit ñi dañoo yeewoogul pour dem vote ji wala dañoo tànn xaar ba 14 heures. pour ñu dem vote ji mhm. moo tax des fois bu bu dee avant midi soo tënkee ne nit ñi vote wuñ parce que euh, farataaluñu élection mun nga juum donc il faut nga xaar ba. Euh, l'après-midi wala le soir parce que ñu bëri dañuy tàmm. di voté ji na kii naan nit ñi danaan su añee lay dem voté su ma jullee tisbaar takkusaan lay dem voté ji donc ñooñu ñu bëri et surtout euh, dafa tombe un jour dimanche dimanche boo xamante ni presque comme naturellement ñëpp ah. dañuy noppalu dallu mhm. lépp lu ñuy def dañuy xaar ba ngoon ñu soog ko def mhm. moo tax des fois da ngay gis rangs sont plus serrés le matin que le soir. Bien donc sûr. moins serrés plutôt le matin que le soir. parce que mhm. la plus grande le plus grand nombre de Sénégalais électeurs dañuy xaar ba vers euh, l'après-midi 13h 14h 15h ba 18h. moo tax des fois muy am ay dérogations parce que day fekk yenn bureau de vote yi heure bi jot terrain bi gudd donc le président du bureau de vote est obligé mhm. euh, mu yokk temps bi pour permettre ñoo ñu daal di voter mhm. mais loolu boo ko arrière da ngay gis ne si suba si ñëwuñu woon lu lu bëri moo tax euh, ñu ñëw ngoon dajaloo fa te mhm. ils sont obligés de de de voter mais de toute façon quand même euh, élection bi mu ci gën neex mooy gisuma incident wala boo amee tamit yëguma ko wala boo amee c'est mineur incident par exemple nga daan dégg ci bureau de vote que jékki-jékki naan Euh, maanaam këpp nañu bulletin yi maanaam ay ay nit ñëw nañ jaxase nañ centre bi wala jaxase nañu bureau de vote bi mhm. jël nañ seen kayit yi sànni ko fële mhm. ñu taxaw taxaw parce que dafa am ay nit ñoo xamante dañoo décidé saboter mhm. mais loolu gisuñu ko fa euh, loolu vraiment soo su dee amul rek da ngay saluer lu ñu tuddee liggéey bi nga xamante ni kii moo ko def le ministre de l' intérieur parce que moom cëram la et du point de vue sécurité ma gis ne euh, vraiment matal ma ko mais du point de vue prévention maanaam jël matukaay yu mat Euh, fexe ba euh, tey nit bu amoon yéene yàqu ko sax. Mhm. Euh, même bu dee da pare nga pour def ko mais doo am foo ko mën a defee. même bu tuwaat mhm. nga ragal wala doo gis am yoon boo ko boo ko defee loolu vraiment. Mhm. muy liggéeyu ministre de l'intérieur liggéey bu am solo nag. ànd hmm? ci ak administration électorale ñun tamit. ñu def sauf que sauf que xale bu jigéen bi ñu teg loxo bi ñu defaroon benn faux carte de presse. Hmm. mu dem ci bureau de vote yi di vérifier en tant que presse. mu mel ni que loolee lañ ci nemmeeku rek benn incident bu ci am. ci waaw kooku moo tooñ parce que mhm. loolu même sans ñu nekk ci élection. Mhm. Euh, tooñ la te yaa ngi tooñ sa bopp. c'est comme tey ma jógee fi rek. Mhm. Euh, dem li jënd sama benn sama toog sama bureau wala sama informaticien euh, créer benn carte professionnelle de policier alors duma policier mais ma créé ko ba mu niroo policier man maa ngi ci usurpation de fonction et de titre. Euh, parce que man yàlla xam ni ma policier. Mhm. samay mbokk xam nañu ma policier samay xarit xam nañu ma mhm. mais bu ma su ma ko defee dès l'instant créé ko rek maa ngi ci lu yoon tere. Mhm. su ma demee bëgg mbubboo loolu pour am lu ma lu policier bu war a am bu nekk ci fonction alors que man du ma policier maa ngi ci lu ñu tuddee euh, lu illégal. donc yow bu ñu la jàppee muy élection muy leneen yaa tooñ parce que yow bi nga koy def xam nga ne lii mhm. am na ñuy jàpp ñu tëj leen ndax loolu te yaa ngi koy def te bu ñu la jàppee foofu ngay mujjee et je pense que loolu vraiment mhm. d' accord euh, àdduna moom noonu lay demee mhm. dëj sax dañuy gis koo xamante nii Euh, bu ñu nit ñi di jooy di fomp moom yoonam nekkul moom mu ngi xool nan lay foraatoo mën lay sàccee sax. bien sûr xam ne <laughs> aussi dañ ciy rax. Euh, uh-huh. surtout information bi ma ko jotee comme. Uh-huh. Euh, dafa doon espionner. Uh-huh. pour jox ko kenn koo xamante ni booy politique la. donc yow yaa ngi dugal sa bopp parce que kooku dugal na boppam ba pare. politique boobu dugal na boppam mais da lay yóbbaale. parce que le fait mu lay yóbbaale tey doo doo añee sa kër. ñi di compter voix yow ñu lay compter ay suraat pour ñu génn la ñaanal la mhm. donc loolu vraiment Euh, am na yoo xamante ni boo xamee sa bopp doo si dugg. Mhm. surtout lu ñuy tuddee usurpation de fonction de titre. Hmm? tu n'es pas un donc t'as mhm. pas vraiment. Euh, du ut carte boo xamante ni yow xam nga ne man xaw ma fan la koy. <laughs> Ah, tooñ sa bopp. voilà mhm. c'est très grave loolu la ñu nemmeeku ci rek euh, élection yu démb yi saa olof daal dinañuy rejoindre dañu koy nuyu laata ñuy rek door waxtaan bi saa noo def nag suba si. ziar. delloo ziar. Mm-hmm. ziar sëñ mm-hmm. am euh, feggoo ak moom plateau bi laataa ñuy dugg ci waxtaan bi yaa ngi ñu euh, fekkoon ci benn euh, parenthèse rek bu ñu doon def muy lu ñu nemmeeku donte ñu ci bari nangu nañu nekk élection yi jaar na yoon mais incident bi nga xam ne dañu ko ci nemmeeku muy ndaw si nga xam ne dañu ko yebal. def euh, defal ko carte de presse mu mel ni que journaliste la ñëw di euh, espionner fi nga xam ne moom moo di ci bureau de vote yi. Hmm, <laughs> jot bi. Euh, bu ma ñëwee fii jaar naa seize. Uh-huh. parce que ci yoon bi la. li ma yor doyoo yegg gis nit ñi après résultat yi di wàcc. Uh-huh. daa am feneen fu ma nekkaat daal maanaam ma ko def sant yàlla. Uh-huh. def ko. muy aw sas boo xam ne mhm. Sénégal bu desee leer maanaam Sénégal dama naan mooy reel Ousmane Sonko mhm. waaye fay na ko borom Sénégal mhm. Ousmane ak ñun ñi nga xam ne ñu ñoo nekk di ko jàppale yépp ñu fas yéene gën a lebalaat leneen Sénégal ki ma koy wax nag mooy ñi ngi ci biir Sénégal bi mm-hmm. am duñ ko def ndawtalu góor mais dañ koy def ndawtalu jigéen <laughs> ndawtalu jigéen mooy yéen da ngeen doy waar da <laughs> dañuy ndawtal góor waaye dañuy joxe ndawtal lebal la joxe mais bu di xaar nga fay waaw mm-hmm. keneen ki ñëwaat ajaat baar bi uh-huh. teranga lañ Sénégal maanaam liggéey ba mm-hmm. liggéey fu dara newut Sénégalais yi xam duñu rëccu du ñu rëcc li nga xam ne. Mhm. li nga xam ne moom lañ ñu euh, falee woon. voilà falaloon. waaw mhm. falaloon ki ñu muy mhm. président Diomaye te tàmbali nañ cee gis ba tax ñu dàmpal waaye it ñu bañ a rëccu li taxoon ñu jox ñu tey majorité euh, je ne dis pas confortable parce que démb dama dama varié ci suba gi bi ma bi may laaj dama ne man. li ma jàpp mooy.